حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بأولى حمدت ربي بنعم المولى مسليا على min aseytaan irajim bismillahi rahmani rahim raditu anil mawla taala lazi rabba fuadi naa ni waakrim bi rabba mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkk teen ñaan waxoon leen leen tey jii ñu ngi ci màggalu soxna Fat Dia Mbacke bintu Xaadim Rasool mu yemoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru meew yi waaye yemoo ak fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu bi ñu ci fàttali ki nga xam ne moo doon taawu Serigne Touba di soxna Fat Ja Mbàkke bintu Xaadim Rasool waaye di bis boo xamante ni bisu jàng alxuraan la ak xasida def salaatu ala nabi ak ñu nekk fii nag nga xam ne moo di e, ci kër sëriñ soxna Fat Ja gi nga xam ne moom la nekk woon waaye njabootug boppam gi nga xam ne ñoo ko wuutu tey jii sëriñ Baara Mbàkke mi nga xam ne moo di ab xalifaam waaye sëñ Bas Mor nekkoon ki nga xam ne moo njëkk a toog xilaafaam mu fi jógee sëñ Maam Mor Pakala ginnaaw bi tamit la nga xam ne moo di Serigne Baara Mbacke mooy xalifa bi ñu ngi nii nag toog ak kenn ci njaboot gi muy Serigne Abo Mbacke moom sëñ Bas Mor soxna Jabbaara mu Cheikh Madul Basir mu war noo xamaleeg jëmb ju màgg ji ñuy fàttaliku muy soxna Fat Ja mooy kan sëñ Abo kon ñu jox la kàddu gi nuyu la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Saleh noo ngi lay nuyu di nuyu bokki jullit yëpp bokki taalibe ak ñi nar a déglu waxtaan wi noo noo ngi fii ni nga ko waxee ci kër Soxna Fatou Dia ci Quddus nga xam ne mooy taawub sëriñ bi ngir fàttaliku ko ak ñaanal ko loolu moom la ñuy tënk di wax màggal waaw loolu mooy li wundu bis bi fàttaliku ko ak ñaanal ko moom nag mooy kan mooy Soxna Fatima am na ñu def Soxna Fatimatu Zahra bintu Rasul la ñu ko waaye doomi Sëriñ Tuubaa xadimu rasulillah abdullahi wa xadimu rasulillah li ñu xam ne sëriñ bi li koy li ñu boppam sax la wax mooy taawam itam moom la jëkk a gis ci doom nga gënee kajoor kajoor la gënee àdduna mooy jamono bi sëriñ bi jógee liñ jógee Saalum ca jihaad yi ba jafo ja ba del si kajoor ànd ak Lat Joor jamonoy dig diggal yooyu ci ci tundu kajooroo la soxna Faata ja gënee àdduna Mbàkke kajoor nag la moo gën a moom lañ gën a jàpp ndax sëñ bi Maam Mor Anta dafa nekkoon Pataar nekk Mbàkke waaye Mbàkke la gën gën a ci ne fa la gën a àdduna koo moom moo ko tudd waaye juróom jigéen mooy Soxna Dia Touré ci waa Lappé bokk waaye ndaayam daañu Soxna Dia Touré doomi Maam Balla foofu sëriñ bi baayam la nijaayam la sëñ bi nituk diine la njabootam gépp da teg ci diine lañu war a xam ci diine lépp buñ ca tollee mu xamal leen ko wala bool leen ak ku leen ko xamal yar leen yorub diine loolu rek moom la tàmbaleel soxna Fatou Jami moo ko jàngal wala jàngal na ko sëñ Moussa Ka wax na ko ci way wi bàyyam ba jàngal na ko ba nga daa xam ne yar na ko itam tarbiye na ko ba melo yi nekkoon soxna Fatou ja waaye pas-pas da ngay dégg ñuy waxtaane pas-pasam ki Sëriñ Tuubaa pas-pasam ci Serigne Touba sunu pas-pas ci Serigne Touba day dellu ci sunu pas-pas ak ci sunu borom tabaaraka taala ndax foo nu teg Serigne Touba yàlla tax na teg kon nitu pas-pas la woon nitu gëm ku gëm yàlla la woon ku woyof la woon ku tabe la woon te tabe ci jikko yi te am ci makaarimul axlaaq la bokk ku bari woon njariñ lool la woon woyof gi daawul soo ko mosam fekk ci néegam bee nga xam ne néeg ba ngi ci biir kër gi xëy na ngeen man faa dem jël ko léegi dañ ko def jàkka jàkka la léegi waa kër gépp bu julli jotee koo amul ngànt dem julli ji waaye mosaan na ci nekkam ñi ko xam ñëpp ne kenn mosoo gis mu toog ci lal wala mu toog ci lépp di wane ak waye fam ak dëggu àdduna toog ci lal dara nekku ci waaye kenn ku ne nag ak fa sa sa xalaat toll fa sa xel toll fa sa ngëm-ngëm toll ak fa sa gisin toll ñii dañuy gisee ni ñuy gisee ni waaye moom daal wàccoon na àdduna wan wane ko gannaaw noo xam ne dëggu na loolu ba daawul toog sax ci kaw ci suuf lay toog fu mu ci biir néegam ko ba ba biñ ko defagul jàkka sax boo demee dañoo mandargaal fam daa toog ci suuf nga xam ne dañ ko bàyyi woon noonu defuñ ko pere muñ ko bàyyi muy suufu kese nga xam ne ñi ko xam ñëpp mu neen foofu lañ ko daa fekk muy toog ku ma noonu jaamu yàlla waa kër gi dëkkoon ak moom wax nañu ne fun masaan guddi masaan jot ba ñëpp tëdd dégg muy muy dégg kàbbar bi booba buur yu bëriwut ni mu bare ndax booba rajo bëriwut daanaka bu suuf seddee ñëpp ne sa raw bu ñu tepp ñëpp dañuy dégg kàbbara bi mu nuru woon sëñ Tuubaa kàddu lool nuru ko jëmm lool mais soxna ma nuru woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa fonkoon ko lool fu mu mas a nekk digle ñu wutal ko fa kër jaareem Tuubaa ba mas na ko wax ne ku lay yërëm ma ci jiitu loolu de wane rek nu mu ko nu ko waaye nag loolu lépp teewul yar ba mu ko war a yar daal ba jikko yii mën a wax nekkoon ci moom loolu moom sëñ Tuubaa ko def ci moom it mag ñeek mbokkam yi daa ko jox seeni doom mu leen di teg ci yoon wa boo ko sëñ Tuubaa teg moo tax ñu bare bare bari génn nañ ci daaram ñoo xam ne moo leen tërbiyee sëñ boole woon kook ñoom am na ci koo xam ne rakkam la soxna Maymunatul Kubra am na ci doomam soxna Mariam bintu Cheikh Moustapha sëñ la leen boole woon ak moom ne leen mu tërbiyee leen maanaam mu jàngal leen taal mooy mu tërbiyee leen rek ñoom it la la la na cee moom la def ci ñoom moom na ci ñoom kon daal xam naa ci tënk bu nekk kan mooy soxna Fatou Jalal ci tënk loolu moo nes na ko ca tontu waaw euh, jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne déglu nan bu baax a baax sëñ Abo lim na xamal ci soxna Fatou Dia bintu Xaadimu wax nga xanaa dañuy dellusiwaat sëñ bi ci wàllu tarbiyaam soxna si fan la ko sëriñ bi tarbiya ak moom bi sëñ bi noppee ci moom bañ joxoñ la def ci sëñ soxna Fatou. ok jërëjëf sëñ bi mi ngi ko tarbiya xam naa ba ñu jógee Mbàkke Kajoor sax boobu tut tànk la waaye boobu mënees naa wax wala tàmpale ndax dafa màggee mm, rakkam yu lu bari Cheikh Moustapha mi topp ci moom rek ci góor ñi ñu nu xam màggee na ko lu jege fukki at mbaa mu mat ko. sëñ bi kon tarbiya na ko foofu tarbiya ko Mbàkke Bal ndax fu ñu mës a dem rek daanaka da koy dañuy ànd ba gànnaar dem na gànnaar ba li mu war def ci moom lépp daal suñu borom def suñu sëñ bi def ko ci moom ba gis naa leetaram moom ko boo xam ne maa ngi ko cay wax naan. sant nañ yàlla sant yàlla ndax li may wattoo sama bopp ci sàmm nga xam ne bu ma la gisee ak ma la gisut ci maanaam maanaam wax ji mooy loolu li may sàmm sama bopp di ko wattoo sama bopp bu ma la gisut bu ma la gisee bu ma la gisee noonu laay def ci maanaam xam ne kon kon la sëñ Tuubaa bëggoon mën na ci moom def na ko ci moom baax jataayu sëñ beeg ñàkk a gis jataayam ñoom day amale kon noonu loolu rek nag ci loolu la def la def ni ko ñi ñu joxoon ñëpp mu leen di ñu wax sëñ Mor Roqee bu soo la ko ko jox sëñ Mor Roqee bu sa mbokk ma doomi sañ Saa Buso la nga xam ne ak soxna Jaara ñoo bokk baay gannaaw bi sëñ Daaru Xasan Jaay sëñ boole na ko moom ba ni mu liggéeyee liggéeyee la sëñ Daaru gannaaw la ñuy wax muuru gannaaw sëñ Daaru it sëñ mat sëñ Ahmadul Kabir Mbay maam Cheikh Mbay sëñ bi joxoon nañ ko kon loolu sax mel na ne gannaaw sëñ bi de joxoon nañ ko ko loolu lépp di wane ndax ñoo ñëpp ay góor yàlla la ñu kon lépp di wane rek sañ Tuubaa ba ko ba ko lépp ñu war cee jàngee yu bari xam ne nit it boo ko amee fa nga ko war a amee yar ko na nga ko war a yare bu ko wàcc ndax am na loxo boo ko ci tegee boo ko ci tegee wàcc ko la sëñ Tuubaa nag bu mu defee loolu ci moom jël nañu ko doy ñoo xam ne mën nañ koo àggale loola wala wala wala def na ci ñoom loola bu ko defee ñu ànd ak moom la sëñ Tuubaa def ñoom ñëpp ñu ànd ko liggéey ko loolu loolu kon kon foofu jaar jaar yooyu la la soxna si jaar. Hmm. képp koo xamante ni rawoon na rawoon na la ci yoon wi ci na la loolu mel na ni mënatoo koo dab ci benn jéego muy ak taalibe bi Euh, njabootu Serigne Touba ge soxna Fatou Jam yi lan moo nekkoon ak taalibe lan lan ko doon xayma ak loolu ci mën a fàttali ba ñu man caa roy ci bis bi jaar ko. ok jërëjëf ak taalibe moom la ca la ca nekkoon mooy jëfe ndigal bàyyi tere ndigal yi it mooy ndigal yàlla yi tere yi mooy tere yàlla yi loolu moo jiitu ci taalibe sëñ Touba mi dem charte murit da caa boole woon fa moom ci teewlu am yaa ko war a jëfe ndigal te mooy ndigal yàlla yi kon ak taalibe dara jiitu ca loola. jëfe ndigal bàyyi tere ak wàcce sa bopp noonu la meloon mag ñi ko xamoon ñëpp loolu lañ ko seeral taalibe ko lañ ko seeral dégg naa ci koo xam ne nee na soxna Aminta Amar ci waa barsax la bokkoon nee na nee na ko nun ñi bokkoon ak moom nekk ca kër sañ ba dey moo nu ëppoonu taalibe nee na soxna Aminta Amar noonu la ko waxe moo nu ëppoonu taalibe te defe naa nag waa sax ku ku mën a seere loolu sa taalibe kenn xamul fu mu mën a fu mu mën a kii bu ko defee nag kon ñu góorgóorlu rek ci ci ci ci loolu xam ndigali sëñ Tuubaa yi te mooy ndigali yàlla yi xam tere yi di jëfe ndigali te yàlla tax di bàyyi tere yi loolu moo jiitu ci taalibe ak nag li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp loolu itam la sëñ Tuubaa doon def ci taalibe yi soxna Fatou mi doy na ci misaal gis nga ni mu defoon rakkam yi rakkam yi defu leen damaa jël lay morom ba nawlu waaye da leen defoon ay sang ay sang kum ci gis fàtte ne moom moo la jëriñu sëñ Touba sax da koy fàtte waaye sëñ Touba ñu ne ci lay gis loolu nag ñun ñëpp noonu lañ noonu la war a àndee. doy na sëkk sëñ Touba jël ci njaboot ak boppam ne ko demal soxna Fatja jàngal ak taalibe te jàpp nañ ne yoon wi ak taalibe ak nekk murit saadix yooyu yëpp dégg na ko sëriñ bi seereel na ko ak muritam waaye lii di yoon wi bi muy sosu ci kanamam la sosoo nekk na fi lu yàgg ba yoon wi yaakaar naa ne ñi ko ci mag ci gën koo xam yoon wi bariwul ndax koo xamante ni moo njëkk a feeñ. dem ba ci jamono yi yi nga xam ne moo di jamono yi Serigne Abdou ci la génn àdduna kooku yaakaar naa ne fekk ne mujj gi fekk na tàmbali bi waaye fekk na mujj gi la sëñ Moussa Ka daan wax sëñ Moussa soxna Fatou si la libaas ne ko moo fekkee démb bu fekkee tey mooy waane waaye soxna Fatou Dieng fekk na ko kon ñu ngi ñaan ci bis bi yàlla ci yàlla defal tawféex ñoo ngi ciy siyaare njaboot ak soxna si ñëpp. li ko dalee ci sëriñ Baara sëriñ Abibu ak sëriñ Aboom yi ak sa ñi nga xam ne ñoo ko màggal ak turandoo yi di ci ñaanal bu baax a soxna Bintu Lo moom soxna Mbène Gàbbu mi nga xam ne bis bi suñ ko xamee ñun bokk na ci leen ko xamal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah دين عنك بارك لي يا رب في مروفي وخير يا وجود بالمروف ملكتني بكونك الكريم ما قادني تفسير وتكريما أعطيتني ما خلف أنسى كل ما بدا من الدون ما تسلما كفاني من ملوك فالعط بما لخير ساعة كل من جعل أكرمني بقل هو الله أحد هبي ولم يكن له كفوا احد ناجاني الله مكرم السماء تناجيا به كفاني الكمال واجعل الاكرم وانفع الكرم بدل لي بخير اجل سلام اسال كونتي القصيده خارقه لعاده مفيده مصطفى محمد yaa sama ji ma رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين وقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di teg nuyoo bi ci loxoy kilifa yi bërëb bi fi teew bu sëriñ Baara di nuyu sëriñ Cheikh ak mbooleem njaboot bi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi am mbégte lool ci dellu si ci ëtt bu tedd bii soxna si nga xam ne ku baax mbaax tudd ngëneel tudd yiw danga ko tudd di nuyu bokk yépp te di leen ndokkeel sëriñ Cheikh Xalim wax na léegi tomb bi kilifa yi sàkk woon ñu waxtaan ci fàttalante ci wax na lu am solo ne jataay yu mel nii fàttalante ci nafaraat daara ji dana ci am solo mooy ñu fàttalante taxawaay bi jigéen war am ci yar joxe soxna su tedd si misaal ci loolu loolu lu am solo la ndax yar mën nañoo wax ne mooy mooy nit mooy lépp mooy wuutale nit ñi ci seen biir mooy wuutale saxanat nit ñi ak mala yi kon lu am solo la loo xam ne war nañ di ko fàttali nit ñi ndax bariwaana nit nu mu mel ab yar moo ko yóbbu waaye ci ci rafetaay ak mataay ak yiw ak sottal lu bari ci àdduna waaye bariwaana it nit koo xam ne ak xeebu ak suufe yéesu ko fenn waaye la ko teg mooy ñàkk ab yar kon yar day jeexital lool ci nit ci wet bu am njëriñ ak bu ñàkk njëriñ kon di ko waxtaane am na solo euh, moo tax xam naa dañ koy tënk insha allahu taala ci yu néew fàttali nit ñi ne yar moomu kenn mënu cee mucc buñ bëggee nit ki sotti mat lim doon doomu aadama dafa mel ni ñu juddoo mooy ni mala yi juddoo rek waaye yar moo koy wutaleeg mala yi ñaare ku mu boo ko dee xool di xool mala doo leen xàmme lekk ak naan ak nelaw ak jaxasoo mooy seen métier te loolu mooy métier mala waaye nit ku yar nag mooy am ay jubbu jëmuwaay xam ne am na lu tax yàlla andi ko ci kaw suuf si bala fee jógee moo waaye ku moom day jàpp ne dund lekk naan ak yooyu la bu faatoo jeexee kon yar mooy tax nit nite ba xeewaani yi ne ci moom mu weesale ma waaye ku ñu yorut naare moom mala yi ñooy léegi sax alxames wax ne am na ci ñoo xam ne ñu mala yee leen tane am na ñoo xam ne mala yee leen tane loolu nag yar bu dégut moo koy waral comme yar am na solo mat naa bàyyi xel euh, ndax yarit nag lu la loo xam ne nit ki. buñ koy yar faw ñu bàyyi xel xel ma bàyyi xel yaram ba bàyyi xel ruux nu xalaat mel ñaare jërëjëf ñaare ñooñu ñoo ko meloon fa abawaahu yuxawwidaani aw yunassiraani aw yumajjisaani kon nit nam mel ñi ko wër ñoo ko melal ñi ko wër nag di jërëjëf ji ndax moo koy jur yor ko ba mu yàgg keneen doo teeloon daal kon taxawaayam bu am solo la koo xam ne. jàpp naa ne euh, war nañ ko bàyyi xel baax a baax bokk nañu solo bi nit ki du xëy rek ñu xëy gis ko mu day baax xaw amuñ jaar am na xatim bu doon wax naan wa ma daana alfata bi xija walakin yuawiruhu tadayyuna aqrabuhu am xelam rek mënu koo jëlee woon lu baax waaye ay mbokkam yu gën a jege ñoo koy tàmmal baax doon baax Euh, waxit ne keneen waxoon ne waxal yurjaa li atfaalin kamaalun ila qadaoo furijan naaqisan ndax des na seenu am nag ci ndaw loo xam ne weenu manqué la naam kon day mel ne bu waxut dana jafe ñu seenu ci njaboot njaboot baax loolu day wane solo te taxawaay bi jigéen am ndax jigéen mooy yaay jigéen mooy yaay kon muy njëkk ci xale te nam mel da ci jeexital te suñu borom wax na ci alquran ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'a wa jaalakum samaa wala busara wala afidata laalakum tashkurun li mu wax ne yàlla moo leen bind bu ngeen di génn ci seen biir yi way bi xamu leen dara kon fu ñu xamee dara mu ni jox na leen ay nopp ak i bët waaye ak xol bu jàpp kon nit li muy xam mooy li ñu gis di ko dégg nit nag yaayam lay njëkk gis yaayam lay njëkk dégg kon lay bàyyi koo ci yaayam lu am solo lay doon ci moom luy jeexital lay doon ci moom kon yar mi ngi tàmbalee ci way jur loolu it nag way jur war na ko xam jigéen war naa xam ne yar mi ngi tàmbalee ci way jur mi ngi tàmbalee ci kon ay cosaan kon li jiitu ci lu moral tànnal doomam cosaan nii góor bi tànnee soxna noonu la ñu sant jigéen mu tànn borom kër baay ak yaay bu doom juddoo faw mu ci ñoom ay melokaan jël ci ñoom ay qualité kon bu dee qualité yu baax yar ba day jàpp su ma leen neneen day moo tax yooyu islaam waxoon na ida ataakum aw ida jaakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fa zawwijuuhu kon dafa mel ne foofu jigéen ñi lay bàyyi loo xel kuy wut ci soxna nañ ca xool jikko ak diine su ñaar yooyu jagee doy na ngir may ko soxna te yaakaar ne doom bi day juddoo dana am njëriñ leen lu xool nag loolu léegi loolu lay jur lay jur kon tànnal ko cosaan am na solo lool ndax doomu aadama yi li ñu nam la ñuy ko li ñu nam moom la ñuy taxamte nit ku ne nam loolu lay Eh, wax ju wér la doon bu xadis bu sax alaar bu dasaas ay eh, wax ju la ak si nit day topp bari nit koo xam ne ñi ko xam dañ lay wax ne la bettuma ndax xamoon nañ ci ay cosaanam lu tax bu meleen moom dañ jàpp ci baax ak safaanu baax ci mbaax ak safaanu baax ginnaaw nit dana dégg ku wax njabootam ne ko soo baaxoon bett ma ndax jàpp ne ay cosaanam baaxul loolu day wane am solo kon cosaan dañ koy tànn bu baax a baax kon taxawaay bi jigéen am ci yar bi lay jiitu mooy na tànnal doomam muy na tànnal doomam baay fii nag li gën a siiw mooy nit ñi soxna dañ koy tànn lañu wax waaye nit ñi tànne soxna noonu lañu war a tànn doom waaye doom bu juddoo dañ koo war a taxaw taxawaay ñu ngi taxaw nag jigéen jii ñuy waxal ngir mën a taxaw doomam la ñuy ci moom mooy mu bàyyi xel yii ndax balaa doom ji dem feneen ñu di ko jàngal muy gis ñeneen yaay lay njëkk gis ci yaay lay njëkk a yaay lay njëkk xam moom lay njëkk def lay wax gone yi liñ seetlu ci ñoom kuñ mën a dajeel loolu leen mën a def danaa la booleeg sama yaay lañ lay pour ñoom seen yaay gën a ñoo man moo man ñëpp moo raw ñëpp ndax loo ko laaj dinaa ko laaj sama yaay yaay jooju kon soxla nañ ci moom yooyu loolu ba léegi soxlaa xam mu ne moom ngir mu mën ko jox rek kon soxla nañ ci yaay ngir mu mën a taxaw taxawaay bi war ci yar jar war mu nekk ku xam lu bari ñuy sàggane te mag ñi sàggane ko woon mooy yar. nit ci umuma ak ci zawjiya léegi jamono ji dafa mel ne bàyyeetuñ xel lool ñi gën a jàmbaare mooy ñu jàngal seen doom diine jàngal leen àdduna yar leen ñu xam xam-xam waaye jàngal leen ak ndey ak ndey mat ndey dañ ko war a jàng mat soxna lañ koy jàng ndax yu bari laaj loo xam ne kuñ ci tàggatut ñaare dana jafe ñu dugg ci am ci ndam kon foofu lay tàmbalee ba bu amee doom xam mat yaay ñu bari ci gone yi tey jii am nañu doom waaye mënuñu yar te newuñ loolu seeni doom xamuñ dara ci ko war a defar gone bu màggee ci ween wu mel noonu nag su yàlla waaye cosaan sabab boo tax ba nekku fa yar bu rëy boobu moo tax mu mën a dëkku ñëpp mën a ànd ak jamono jëre mën a xejoo ku ne waaye xamit li ko andi ci àdduna mooy xam ne doomu aadama yi dañoo ñëw ci àdduna liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi ngir bu ëllëgee nga am ngërëmu yàlla taxoon alalam lépp mu jox ko nit ñi jox ko njaboot gi di xitma guddeeg bëccëg di togg ay ñam jox di yar njaboot gi yar ngoo xam ne pour ma sa nopp ci yow foo dem royukaay ngay doon jigéen ñu mel noonu la xeet yu soxla ngir ndaw ñu mën a jàpp mboolem li ñuy jàmbat ci ndaw ñi bu kenn jàpp ne àdduna yàqu jamono sopp bi jamono mosu sopp nit ñi ñooy sopp waaye ndaw ñiñ jaarale fi mag ñi jaaroon ba tey ndaw yi baax na waaye su fekkee nag ne dañoo boyal ndaw ñi amuñ yaay yu jar amuñ baay yu jar ne benn xakim waxe woon ne ab jirim du ko ñàkk ndey ak waaye moo koo xam ne ndeyam tëlu ko baayam tëlu ko kooku mooy jirim dëgg-dëgg te loolu moo bari ci si fi ne nii li gën a bari nit ñi tëlatuñ seen i doom ñi ci gën a góorgóorlu li benn waaye daan wax ne ñetti bee ñetti bee ñoo sonal suñu njaboot yi biberon ak bergeau ak bon te wax na dëgg ñett yooyu xale yu bari ci la ñu mën nampatuñ seen weenu yaay neew nag ak xar nañu nam kon buñ doonee bu màggee di di naññ maa yi daane buñ jaaxal nit ñi loolu mooy li mooy xale boo xam ne alal moo leen boole danga koy fay alal ngir mu yor na xale yi su la gisul lépp luy tax mu noppalu ci xale yi dana ko def ci réew yi naa da ngay dégg ba tey nit koo xam ne daa yorub xale sàrte na ba rey ndax métier la ñu ko def amul pexe mu rey doom bari na ñu fa tëj ci ay réew ñu xam lañ leen tëj mooy dañoo rey doom yañ leen dénkoon déllu ko sàmm kon yooyu oh, yu mat bàyyi xel la te bokk na ci li tàmbali tasaaroo ci jamono te sëriñ bi ci njàngaleem ak mën a jàngaleem bi mu dikkee dafa yëwénal yooyu dafa jubbanti njuumte yi nekkoon ci jàng bi ñàkk a jàngal jigéen ak suufeel ko xeet ko loolu lu fi te yàgg na ci histoire yàgg na ci histoire jàpp ni jigéen am njàng amul solo abul ala al maari mas bu yàgg ne fa salaatul fataati bilhamdi wa ixlaasi tujzi an yunusin wa baraa ne jigéen daal jërul di ko jàngal saar yu gudd ko jàngal fa ak ixlaas doy loolu luy jàggal waaye sëriñ Tuubaa bu mu dikkee moom mi xam diine xam li yàlla bëgg si njaboot bi xamaloon nañu ne ki ëpp solo ku ñu war taxaw mooy jigéen moo taxoon daara bi ñu sampoon ay jigéen la ko yóbbu woon soxna Faati mii njëkk a ci jabootam fi ñu góor ñi lañ ko jaarale ci jàng alxuraan yar ko yaru diine waaye tarbiye ko jàngal ko liggéeyu jigéen ba mu nekkoon royukaay ci yëpp ci ba tey kër yu ne am ni fa bàyyi ko ñoo xam ne moom moo leen yar moo leen toqi bañ na leen loolu nag moom la xeet wi soxla ngir njaboot yi ko léegi ñu jaaykat moom li naar yi wax ne fàqdu sey laa yoxte yi mooy wér jigéen ñi buñ melut ni ñu war a mel mun waruñoo mën a séenu ci ñoom ñu am njaboot yu weer bi war a mel tey ñoom ñooy jiitu ci ñoom bala ñoo dem ci daara ja wala ñu dem ci sëriñ ba fekk na ñoom nangam yàq seen yaay ñu bare bare dugg ci ñoom ba chronique yi nga xam ne caaxaan duñ ko bu dee wax loolu bu dee sàggan sa awra bu dee tilim bu dee bëgg lekk góob bu dee bëggee loolu lépp ay waajur ñaare ñoo koy def ci doom ba fu mu mën a demee du tàggoo moom buñ ko dindi nag dañuy daal am nit ku jàpp kon waajur jigéen mooy ki jiitu ci moo ci ëpp solo yi nag moo ci ëpp solo ndax jeexitam moo gën a des kon moo gën a mat a bàyyi xel moo gën a defar loolu Sëriñ Tuubaa jàngal nañu ko joxewoon ci misaal Sëriñ Musaa Ka waxoon na ko ci bayit boo xam ne danaa ko faral di wax ne war nañoo laaj suñu bopp. yéen ci sëriñ bi jëlee woon lu mu delloo si sëriñ bi jëlee woon na fi jigéen ñoo xam ne melul nañu war a mel ba tax sëñ Moussa ko ko ci béy solo woowu dox ne soppi jigéen ñi muslimaat kon mel na ñu fi fekkoon dañu doon tuddoo diine rek waaye nekk buñ ko woon buñ la fa bàyyi woon kenn dëggul leen faw ko baax loolu day soññ ci baax waaye saban ba it nañu ci dégg koo xam ne jàllaw ay kan ak daf yaram neen ak wax lu ñaaw ak jël loo mënul ci ci nga gis ni màgg ga soo màggee baax day roy lool te lu mu bari moo bari ci suñ société bi kon ñu bàyyi xel ne liggéey bi war nañ ko gën a jëme ci fexe ba ñu mel ne ñu soxna Fatou Diagne ni meloon doon ci melal ñim yaroon ñoo ne ñu delloo si leen pour ñu mën a am njaboot ñu mën a yoon woowu rek moo fi defar leen jigéen ñi société bi jàpp al ummu madrasatun ida ahdataha ahdata shaaban tayyibal arab waaye kon boo ko waajalu kon doo am shaaban tayyibul arab kon ku defar société ku bëgg société jàpp fexe bu jigéen jàpp bu jigéen jagee adduna jàpp bu jigéen yàqoo adduna yàqu jamono yu ñu toll nag am na ñoo xam ne seen yitte seenum xëy ko gont mooy yàq jigéen te xam nañ ne bu yàqee jigéen yi réew mi ñu ngi leen dugal ci ay caaxaan di leen woo ci ay concours yi feccat concours yi wayat concours yi gëmloo leen sollu ba roy ñoo xam ne bokkuñ dara ba ku yàlla dimbaliwu tey mucc ci ñoom defe te ñoo ne ay moyens yu bari lañ am ñu ngi dugg ci kër gu ne di jokkoo ne kon kilifa yi war a am nañ war teeku bu waajal ñooñu fexe ba jàmmaaroon ñoom. lu baax li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi woon yaroon ci ñu mel ni soxna Fatiga ñu fex ba loola ñu delloo si ko musal suñu njaboot ci ay woowu nga xam ne bu lawee ba àgg fu mu war a àgg fañ ko bëgg àgg ñoom dana jafe te nga gis nit ku jur nit koo xam ne bu ëllëgee dana yaakaar ci moom baax loolu moom mooy li wér te ñoo ñu am doole lañ ñoo ëpp ci média yi ñoo nekk fépp daan guddi ak bëccëg suba ngoon ñu ngi tur ak jigéen parce que ñaar ñooñu moom la àdduna société boo dem moom leen xamal ne moom la moo tax liggéeykat yooyu ñi liggéey ci yàq ñoom comme nit ci daara yi li yi diine yi nit ñi baax ñor ñoom itam war nañoo takkaat seen ndigg gën a laxasaayu ci fas yéenee delloo seeni njaboot ñu xamaat seeni xiyam delluwaat buñ ko defut ci kanam tuuti ci kanam tuuti li wolof naan li raam ci xet bi lay bari na ñaaxum yoo daan dégg fu sori léegi fu jari nga koy dégg suñ ci taxawul nag da ngay jékki-jékki xëy na jàkkaarloo moom loolu nag liggéey moo ci war liggéey bi nag jàngale ak yare soxna Fatou Dieng yi métier moo doon jàngale ak yare moom la ko suñu ci wax daan booleel kon kilifa yi nañ tàggat ndaw ñi yóbbu leen ci daara yi jàngal nit ñi yar leen incha ko defee njaboot yi tuddee bu ëllëgee ne Sëriñ Tuubaa defaroon ñoo xam ne bu mësaan a génn dañuy soppee waaye kenn loolu mën nañ ko am ba tey jii loolu sëriñ Cheikh mooy mooy mooy ma bëggoon a tënk ma dellooti sëb bàttib xalim tay fasoo xalam di bàkkal borom tur wow de feese ay ngërëm ma dellooti sëb bàttib xalim tay fasoo xalam di bàkkal borom tur wow de feese ay ngërëm ba naa fi nos jox ngërëm jox ko hadiya ne moo yey te way te fii sàkku ay ngërëm danaa jox ko ab yaatu yooyu ku bur bind lottu nga di way way wu mel nii ngir xereñ gaay dafa ko lëm ka yàlla def muy taawu cheikh ahmadul xadim te tur wam ko jox it tur la wow lottu nañ ci xam gëmoon yàlla lool ak yonenam bam ko mujjëlal wa salla alayhi llahu fil aani ñëpp am te fonkoon na ak jaamoom ba mus ko mooy ndigal te sunnas muhammad moom la daa topp ci xelam andeysaan xiyaamul layli far nañ ko jooyu basar garab yaa ngi jooy ak géej yi ak dex yi ngir gëlëm samaahun waardun ñëpp a jooy nañ ba far selaw te mindeef yu bi te mindeef mu fii dundit lu néew néew ñu gas ba xam samaahun waardun ñëpp jooy nañ ba bis booba jooy na ko faqiir yaa ngi booy seen nag ku nag kostuwam gërëm di tàmbalee ci nuyoo bi ak ziyaar yi ki nga xam ne mooy kilifa yoon bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom guddal fanam lool te may ko wér ba mu ak naaj yi mu am ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne la taxoon borom sos ko weesu weesu lislaam kon mel na ne buñ ko ñaanalee mu mottali ay naalam ak yéeneen rek dana ko matal ci lislaam ndax yoon wi rek mooy lislaam diinal si islaam yi laa yaxamadu an ilaahi wa bihi nu jaddidu kon bu loolu weesoo it ñooy bu baax sunu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk te bokk ak ñoom soxna Fadja muy jabootu soxna Fadja Mbàkke di leen ziyaar ñoom ñëpp di am mbégte lool di bokk ñoom bis bii nga xam ne dafa bokk ci bis yi taxoon ñu naan inna fi ayaami dahrikum nafahaatun fa taaradu laha am na ci bis yi bis yoo xam ne suñu borom day dotte ay xéwalam kon su boobaa na ngeen ci profité yéen jullit ñi fexe caa jariñu ca bis yooyu di jàpp bis bi ci la bokk ñu ngi am mbégte loolu di ko bokk ak sunu mbokk yi ñu bokkal soxna Faty yëpp tàmbalee ba ci Cheikh Mouhamadul Amin mi nekk bopp ak ñi ko sax yëpp nu am mbégte ñëw fii ci bis bi ba tey bokk ko yéen waaye teewal fii ki nga xam ne mooy sunu kilifa muy sëriñ Ahmadul Mokhtar Mbacke moom mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla na fi yàgg lool te wér moom njabootu Serigne Touba gépp niñ koo xamee ne bi modérateur bi wax na ko léegi ginnaaw bi mu fa teewee teewal fi boppam ànd ak njabootam loola doy ko waaye dafa wëlbatikuwaat yónni njabootam ñu ñëw teewalaat ko ci bis kon loolu jàpp naa ne yitte ak fonk gum fonk barab bi ak kër gi moo tax mu def loolu te biñ koy def tey am nañu xew-xew boo xam ne moo waral nañ bëggoon a ñëwee dëgg-dëgg sax desoon maanaam bëggoon nañ mu gën a mu gën a am jëmm lool waaye teewul manees na ne rek njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp teew nañ fii tey ci ndax ni mu ñu yónnee ñu jiital ci sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalix moom sëriñ Modou Moustapha moom mi nga xam ne moo jiite bi jóge Daaru Xudoos mi ngi ne toog mi ngi dend ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Ibrahima moom Cheikh Mouhamadou Moustapha moom tamit ñëw na naka noonu tamit sëriñ ngi ne sëriñ Baara moom sëriñ Mahmoud Xarilo moom tamit ñëw na. sëriñ am Mbàkke moom soxna Daba moom sëriñ moom it ñu bi dend ak Cheikh Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Fadil moom tamit mi ngi ci ñu ànd ak it sëriñ Moustapha Kane di doomi soxna Tuuti moom sëriñ Modou Moustapha ànd ak sëriñ Mbaye Longor moom sëriñ Mbaye Longor moom tamit mi ngi ci délégation bi ak taalibe yi sëriñ Modou Moustapha yi ak njabootam ñëpp ñëw nañ sëriñ Bassirou Mbàkke moom sëriñ Saliou ambassadeur moom tamit ñu ngi ci jotaay bi kon xëy na am na ñoo xam ne sax dama leen gis waaye daal nañ jàpp ne rek njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha bi doonte ni ma ko waxee léegi am nañu xew yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def tey teew ñëpp ñëw nañ ñëw ci digalul Sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy suñu kilifa kon biñ ñëwee dañoo ñëw ngir kàddu gi ñu jox ci digalul Sëriñ Cheikh mu jëlee ko ci sëriñ Ahmadul Mokhtar muy kàddu yoo xam ne kàddu yu cant lay doon sëriñ Ahmadul Mokhtar mi ngi leen di sant bu baax yi waa Kër Soxna Fadja ci cër bu rëy bi nga xam ne dañ koo cërale Cheikh Mouhamadou Moustapha ci bis bi nga xam ne mooy bisu Soxna Fadja bi muy loo xam ne rek buñ ko defee dafay mel ne mënees na ne histoire daa indiwaat boppam rek ndax dañuy ñaar ñoo xam ne dañoo bokkoon Serigne baax ñaar ñoo xam ne kenn ku ne am loo daan xool ci sa morom ngir Serigne Touba soxna Fatia nekkoon dama jëlale seen mag waaye taxawewoon ci ñoom taxawaayu waytu ñu xamoon loolu daan ko sàmm ndax ni mu nekkee woon seen mag ci aada manees na ne noonu la nekkee woon seen mag tamit ci iraada ndax soxna Fatia euh, sëñ Mbàkke bi doon wax léegi dégg na li ci wax fa Serigne Touba jaarale mag ña mu àndaloon da ko jaaral sëñ Tuubaa ko jàngal sëñ Tuubaa ko tarxee sëñ ko kon xëy na seen mag la ci aada waaye seen mag lay ci pas-pas nga xam ne eh, niñ koy waxee nekk gi mu nekk jigéen teewu koo am ak cëram ci yoonu Serigne Touba te ñu ko Serigne Moussa Ka di waxee naan kile su doon góor su doon góor kenn du doon kenn du doon kenn du moom jumaa ji mooy magi Cheikh Fadilu mooy magi Cheikh Basirou ak Alaaji ne bu doon góor a ko waxee kenn du moom jumaa ji kon loolu ak cëram la daan ne Alaaji Fàllilu Sëriñ Basiiru ku nekk seen gal na ko muy féeru suñ ko gisee def ko ni seen maam jaara xam ne su doon góor ëpp leen di daara kon ngir xam ne soxna soosu ci seen jataay ci seen ci seen taxawaay taxawaay wala boog ci seen biir bayit yooyu rek doy na ci sax ngir wane ko mu doonoon koo xam ne eh, niñ ko waxee léegi dégg nga ni ko suñ Mbàkke waxee moom Cheikh Mouhamadul Moustapha seen diggante diggante bu yàgg la boo xam ne lii ñu def nii rek dañuy feddaliwaat loolu waaye jàpp naa ne sax gën naa kawe li ndax eh, ni mu doone woon seen kilifa ci ay at noonu la leen joxe woon cër boo xam ne cëru daf doon xool ci ñoom Serigne Touba te misaal mi ci nettali am na fu ma masa eh, jàng fu mu bind ne soxna Fadja Cheikh Mouhamadul Moustapha daf koo masa fekk ci barab su may jumul Daaru Salaam la wax waaye xëy na fàtte naa barab bi waaye la ci am solo rek mooy nee ba mu ñëwee ba ba ñibbi ba ko soxna Fatou Dieye gunge nee na bi Cheikh Mouhamadou Moustapha demee oto bi mu duggoon soxna Fatou Dieye da doon tibb ci suufu ruu oto yi jeexee ji ngir na da ciy barkeelu ci oto bi nga xam ne doomi Serigne Touba moo ci mujj kon jàpp naa ne bu fekkente ne bii ñoom jox nañ ko cër bi moom soxna Fatou ci boppam wëlbati ko na fay leen ko ba ëppale leen ci ak taalibe ak ci pas ndax jàpp naa ni yitte jooju bariwut luñ koy dégg ci histoire murid naka noonu yi am na ci loo xam ne sëñ Bàkki wax na ko léegi ci lu leer di Cheikh Mouhamadou Moustapha di tabax jumaa ji taxaw na ci taxawaay yu am solo yoo xam ne bu doon góor it mënta weesu loolu ndax li mu amoon muy li gën a cher ci moom ci matériel àdduna lépp wecc ko na ko def ko alal boole koog lam amoon jox ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ngir jàppale ko ci ci liggéey bi boole caag daan taxawu ñi nga xam ne ñoo yoroon jumaa ja lépp ngir jàppale ko ko ànd ak moom ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi kon yaakaar naa ni diggante bi daal ci gàttal rek diggante bu yàgg la boo xam ne euh, dañ koy feddaliwaat rek di ko di di di di di jokkuwaat bokk googu nga xam ne moo doxoon seen diggante ak ñoom ñaar ñu di ko def nag ci tuuru Cheikh Ahmadul Mokhtar bi nga xam ne moo ñu fi yónni ci njiitul Serigne Cheikh Mbacke Sikap kon daal nañ xam ne yéen waa kër Soxna Fatia Serigne Ahmadou nee na bég na lool ci cër bi bég na lool tamit ci. féetale gi nga xam ne moom lañu ñu féetale bis bi Cheikh Mouhamadul te muy loo xam ne naka jekk bisam la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Baara mi nga xam ne Serigne Baara doomi Serigne Mor Soxna moom Maam Mor Jaara waaye di xalifa Soxna Fatija moom Serigne Touba itam. ci turam ca turam day ëmbaale tur yi njabootam gépp kër sëriñ Basmor kër Serigne Mamor Pakala kër Serigne Bara moom mooy Serigne Bara ak kër Serigne Modou ak ci turu ñi nga xam ne ci ñoom ñoom la tegoon ci seen loxo organisation màggal gi ci njiitul sëriñ Cheikh Guédé ànd ak sëriñ Ahmadou ak bopp yu baax yi ñu ko àndaloon yëpp ba ci sunu doom yi di Wildaanu Muxalladoon taxawaay bi yëpp rafet kon ci tuuru kilifa yooyu yëpp noo ngi nuyu ñëpp nu jëkk a sant Serigne Bakke Abdourahmane ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom sax mën naa ne moo jëkk a wax ci kàddu sëriñ bi nee na lii ngeen ji koom àdduna ak alaaxira mooy ab yar lépp lu waaye di yëkkati itam di ca tàdd muy askan muy alal muy xam-xam muy lu mën a doon tàddee cib yar moo ko gën wax nañu itam xamal nañu ab yar war a tàmbalee mooy nit ki nay wutal doomam ndey ju baax ndey ju baax fa lay tàmbalee mooy li di wax ku la jikkoom jaaxal danga nga xamul fa mbokk kon day ju baax andi na aaya jooju ba bala du tayibu aaya ju joo xam ne wana na na langa nga la nga la nga nga jig rek la nga ji rek moom ngay góob loolu itam bu ñu xoolee mën nañ ko royee ci sëñ bu mag bi ni mu wutalee dinaa soxna Fatou mooy misaal mi wutal na ko waaye jur yu baax soxna ja Touré mi ko jur ndaya mambal la ay saa ko jur nga xam ne fa sëñ Tuubaa bokk rek fa la bokk kon tàndan la ko ndey ju baax ni mu ko tànnal la Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom la ñu sédd bis bi nga xam ne moom it wàllu ndayam kokki ak ndaam li ko sëñ Moussa Ka waxee xam amoon nañu jàllare jàlloore door a xam daam kon moom itam loolu lañoo ko bokkale waaye boo këram ñëpp noonu leen tànnale way jur yu baax mu wane na itam nanga tànnal yow yow yow nday ji na nga fexe ba tànnal sa doom baay bu baax andi xadis boobu yonent bi waxoon ne andi bi andi xadis boobu yonente boo xam ne ida ata ida ataakum man taradawna diinahu wa xuluqahu fazawijuhu koo xam ne diineem doy na leen jikkoom doy leen bu ñëwee ñaan leen soxna na ngeen ko ko may kon ni mu waree góor gi ni la waree jigéen ji mu wax xamal nañu itam tërbiya yar fa muy tàmbalee mooy yarut diine moo tax ñuy wax loolu kon wane na ne yar bi lépp diine la war a doon diine moo ko tàmbalee diine moo koy tëj waxtaan bu am solo koy sonn bu baax a baax ni ñu ko waxee itam bis bi dañ ko seetee lu njëkk loola sëñ bi mi ngi sëñ Cheikhouna wax na ko léegi waaye mi ngi sant ki nga xam ne mooy kilifa yoonu murid bi yëpp nekkal fi Serigne Touba di Serigne Mountakha di sant kilifa boppam itam di Serigne Abdoulah yàllaay góor mi ko nekkal Mamour Diarra bu tuddee ñooñu tudd na bokk yëpp daanaka kenn desut kon mi ngi Serigne baa ngi sant ni mu ci jagleeloon ak fàttali fàttali bis bi waa kër Cheikh Moustapha ndax da ngeen koo séddee séddee gi weesuwul rek xamal bokk yëpp ne soxna Fatou Dia moom ak yéen noo ko bokk. la ñaar moom Cheikh soxna Fatou Dia ak Cheikh Moustapha la tey seen wàll doxoon nañ ko ci seen dund lañ waroon a seq lépp seq nañ ko. Sëñ Tuubaa it moo leen boole ndax ci coobare yàlla ñoom ñaar ñoo jëkk ci kër Sëñ Tuubaa sëñ bi boole leen. loolu defal soxna Fatou Dia sax sëñ Moustapha la koy jaar. am na mag moo xam ne nee na ma soxna Fatou Diagne nee na ko këram gii ba mu ko bëggee jox booba sëñ baa ngi jëriñ soxna Fatou Diagne jëriñ da koo yabal ne ko demal yabal ko ci Cheikh ne ko ko na la wutal kër foo xam ne du ma sol Cheikh Moustapha rëddal ko kër gii fii ci wetu kër sëñ Touba gii di bayti sëñ Mourou Moustapha ko rëdd ci tànkam. kon loolu ak boole la boole sëñ Touba noonu la ñu ba ci abiyaat yooyu mu defal xam naa sëñ Mbaye Lo Ngor boobu di xas ko doon ko andi. bay yooyu nga xam ne seen seen soxna fàtte way na ko sëriñ Mourou Moustapha sëriñ Mourou Mamoun Ndong waaye Cheikh Moustapha yaa mu solo waxtu wee xam ne kon ñu bàyyi la yëpp nga wax ci bu bëree bëri kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax dañuy wax adulatul kabit seen ji li ma sama jarba seen ji li ba ma jalis mi ngi mi ngi xeeb délégation bi waaye defe naa ne la waa Quraysh waxoon bañ bañ yabalee Badar na Quraysh yabal na adulatul kabit defe naa adulatul kabit ci daara Quraysh moom ñoo teg yi mu waa kër nga xam ne bi mu leen demee man si ne kenn desul kon moo ngi délégation ko moom ñoo ngi ciy bu baax jàpp nañ ne Daaru Xudoos gépp teew nañu ci jotaay bi. moo ngi sant ñëpp sëñ baa ngi sant itam nag ñi nga xam ne sëñ Cheikh naa waroon na leen tudd te tudd leen mooy daayira doomi sët yi mooy ñoom ñii wax daan mu xaladun daayira daayira waa waa waa xuub yi daayira waa Kokki daayira Daare Laxasaay daayira Maam Awa Duyuuri daayira waa Bokkulu waa Tayba Maribel daayira yëpp daal bu tuddee buntu bu sëñ bi bind nañ ci kayit bi yëpp rawatina daayira turandoo yi turandoo yi soxna Fatou Diaye soxna Fatou Diaye nga xam ne dañ leen tuddee soxna Fatou Diaye ñu jiite ay daayira moom Serigne Bachir moom Serigne Abdoulahi moom Serigne Modou Rokhaya ak. moom sëriñ Massamba Diop Sam ak daayira yëpp di sant waa kër sëñ Xasan Ndiaye mi nga xam ne sëñ bu mag bi dafa boole woon soxna si ñu bokk ab liggéey kon nag ak xam naa waa euh, euh, euh, waa waa mairie hmm? waa kër waa kër Baye Serigne moom itam sëriñ Ba baax donc ngay hmm, taalibe yi taalibe kër soxna Fatou yëpp waroon nañ leen jox kàddu daana leen ko jox waaye xaj boo xëy moo tax. ñu yóbbaale leen ndax kàddu sëñ bi yóbbaale nag kàddu kàddu yëpp loolu moo tax joxuñ leen kàddu sëñ baa sant ñëpp di leen dénk rek jigéen ñi góor ñi rawatina jigéen ñu gën a bàyyi xel ci lii sëñ Mbacke Abdourahmane doon waxtaan waxtaane léegi mënuñu koo jàppe rek animation buñ waxee rek ku ne dem fëgg say daal waxtaan bi neex na loolu bu yàggee du am benn njëriñ dañ ko war di déglu di ko di ko di ko di ko bàyyi xel kenn ku ne fa nga jël nga yóbbaale ko fa kon jigéen ñi nañ koy bàyyi xel bu baax ci yar njaboot yi jëkk leen wutal way jur baax góor ñi wutal doom yi way jur bu baax jigéen ñi dafaw buñ ko defee rek lépp lu ñuy naqari ëllëg suñu borom mën nañ ci dimbali